ñëwam gi daanaka na mu demee woon rek noonu lay demewaat ñu koy teeru nag mu baaxe ñu jënd ma jëmmam ji ak li mu toggoo lépp ni mu diise ak fii mage gi tollu waaye moom buy liggéeyal sëriñ bi du xool ci jëmam dara day day sëgg dem rekk bu ko defee nag ñu ànd ak moom mu baaxee ñu ñetti fan yoo xam ni dafay ñëw fii ci ndakaaru te ngan ngiy tàmbali alxamis ñaar fukk ak juróom benn ba ca dimanche ja ñaar fukk ak juróom-ñeent dañu jël dispositif bi nga xam ni amoon na bi bi ñuy euh, bi ñuy euh, inauguré Massalikul naan ñu renforcer ko donc bu ñu waxee loolu rek déjà war ngeen am une idée ba ñuy inauguré Massalikul naan je crois que mobilisé woon nañu policiers yu bëre euh, yokk ci policiers yi également un nombre assez impressionnant de gendarmes cette fois-ci également jàppale nit ñi du début à la su ma nee début à la fin mooy bu xalif bi duggee biir dakaar ba buy génn biir Dakar dañuy am dispositif de veille dispositif de suivi ci aspect yi nga xam ni aspect yuy ànd ak euh, mobilisation bu mel nii la. yàlla def it tey jii ñu àndandoo ko ñu doon def léegi ab daje CRD yoo xam ne ñeenti waxtu nga xam ne lépp loo xam ne yooyu yittee woon nañ ko ci ngan gi yittee woon nañ ko ci niñ koy waajale ñu wax ko ko mu bind ko ànd ak service yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi te nekk ci ndigalam lépp ñu nungu ko def ci ba def ci loo xam ne lii weesu na suñu njort kon ñoo ngi koy gërëm ci turu sëriñ bi di ko gërëm ci njabootug sëriñ Touba gi di ko gërëm ci turu Cheikh Mamadou Bachir mi yor kàddug sëriñ Touba di ko gërëm it ci taalibey Ndakaaru yëpp nga xam ne sëriñ bi ma wax ma ànd ak ñoom ci liggéey bi maa ngi koy gërëm di ko sant di sa gërëmi kilifaam